bu nee meŋ dootoo seeru xaj bu ko baw ku dee fi yee naw kooke asal rëwagul marax bu maasee ñu naa biddiw bu leera nga nee weerit bu feqee ñu naa leeram gi ëpp na xel te xam ni jant bu fenkee kenn du yee maka naw ku dee fi yee naw kooke asal rëwagul sayaana ngi dégge ngi ab teena ngi dexe ngi te géeja ngi ëpp leenum ndox xarit xalamal teewul ku nekk fasay kem ngay mane amu tur ku am fasay kemu saw ŋàññi rot na asal gasal di yaw te bul geesoo ti nga gas kuy gas di geesub jalam lay ngën ji ndam du ko jël te jal bu rëy sax du ndam xëy bënn rekk di ndam loo rëy rëyub jal te bënnoo ndam demul dikkagul gasal te bay bala ngaa am ndam lu kenn amul sa jajj bënn sa toolit ñor nga mucc musal sëriñ bi yàlla na nu may ay jajjikat yu sawar te may nu nuy jajj loo kay jajja kay rafetal te yal na yokk sunu i xiiwal te yokk nu gëm te dolli nu ite may nug way ci topp ndigal te yal na fab jépp lor jox faw gaayanu moy te jox nu faw ngëneel ak mbég mu kenn amagul